Guy Marius Sagna ñu lay euh, nuyu. maa ngi lay fay. may fàttali suñu auditeur ni Guy mooy suñu ganu tey moom bokk na ci euh, mouvement FRAPP France dégage moom moo tamit euh, initié ak ay ñoñom lii di mouvement bi ñu duppee tey Corona dégage Guy ñu bëggoon xam lan moo waral ngeen taxawu tey ci anam gi. jamono ji ñu toll nii li ko màndargaal mooy ab tiitaange boo xam ne dafa ngëb bépp askan bi nekk ci àddina gi. askanu Sénégal nag moom itam mu ngi ànd ak njaaxare ànd ak itange ci jàngoro bii ñuy woowee coronavirus moo tax ñun waa FRAPP ñun waa Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricain ñu ne ñu ñàkk dugal suñu loxo ci xeex noon googu googule ñuy woowee coronavirus moo tax ginnaaw pour suñu campagne bi ñuy woowee pour la souveraineté monétaire France dégage ginnaaw suñu campagne bi ñuy woowee sama suuf sama bakkan ginnaaw suñu campagne euh, bi ñuy woowee non aux APE ñu taxawal beneen campagne bu ñuy woowee coronavirus mooy ànd xeex ànd daan jàngoro bi ñuy woowee coronavirus ndaxte kat buñ ko defulee ah Euh, suñu askan dina sonn suñu askan dina torox euh, dinañ am jafe-jafe euh, te feebar boobu day daal reyee moo tax nag ñuy wax askanu Sénégal feebar boobu ñuy wax coronavirus buñ ko jàppee kaf buñ ko jàppee ay naxe feebar la mu ngi rey ay doomu aadama ci àddina bi te feebar boobu kat bu duggee fii ci ah, dugg na Sénégal buñ ko bàyyee mu law ah dinañu sonnal ndaxte dañuy fàttali Sénégal mooy réew bi nga xam ne ah li mu am euh, mooy euh, benn infirmier ngir euh, juróom-ñetti junni doomu aadama te OMS dafa ne li war a doon mooy benn infirmier pour ñetti téeméeru doomu aadama li ñu am fii Sénégal mooy benn hôpital ngir juróomi téeméeri junni doomu aadama te OMS lu mu digle mooy am benn hôpital pour téeméer ak juróom fukki junni en fait doomu aadama kon ñun suñu système de santé dafa tardé. Mm. kon ñun suñu réew dafa néew doole moo tax nag am nañ ay infirmiers yu xarañ. am nañ ay euh, ay médecins yu xarañ ñii di liggéey ci waa kër docteur ñu xarañ lañu donte seen am-am dafa néew doole waaye bu ñu boolee xarañte suñu ay infirmier suñu ay médecins ak ñoom seen ñu boole ko ak ñun askan wi suñu discipline suñu yer suñu teggin waaye tamit si ci euh, respecté li nga xam ne waa kër docteur loolu la ñu ñun am am nañ ngëm-ngëm ne donte itàng bi rëy na donte njax njaxare bi rëy na ñun waa FRAPP wóor nañu ne dinañ mën a daan li nga xam ne moom la ñuy woowee coronavirus bu soo nag askan wi. Mhm. lii ñuy wax président Macky Sall mooy président Macky Sall dafa war a taxawal ay jumtuwaay yoo xam ne foo nekk ci Sénégal mun nañ ràññee ndax doomu aadama gi am na corona am déet ñaareel bi képp ku am doomu jàngoro bi ñuy woowee coronavirus état bi faj la ba nga wér ñetteel bi. bërëb yi nga xam ne li mu corona li mu doomu aadama yem coronavirus bëri na mhm. dëkk yooyu a ah, nañ leen isolé nañ leen confiné maanaam ñooñu kat bu ci kenn génn bu ci kenn dugg. beneen bi mooy ni ñuy wax président de la république mm-hmm. budget ministère de la santé bi nga xam ne dafa dellu ginnaaw diggante deux mille dix neuf deux mille vingt mm-hmm. ñu wàññi ci téeméer boo jël euh, juróom-ñaar ñu ngi wax président Macky Sall mu voté loi de finances rectificative boo xam ne maanaam mu dem ci pencu réew mi mm-hmm. ñaan député yi d'accord ñu xool fan la ñuy jëlee xaalis ñu voté. Euh, loi boo xam ne dina yokk euh, budget bi nga xam ne koppar yi nga xam ne moom la ñuy jox ministère de la santé et de l' action sociale waaye tamit am na yeneen jumtuwaay yoo xam ne dañ ko soxla. xam nga euh, boo amee jàngoro boo xam ne day wàlle am na lu ñu woowee centre de mise en quarantaine Sénégal gépp benn la ci am te boobu sax respecté wul maanaam condition yëpp sart yëpp donc ñun dañoo war a am centre de mise en quarantaine yu doy ba pare am lu ñu woowee unité de virologie nationale ndaxte bërëb bi nga xam ne fa li ñuy yóbbu deretu doomu aadama pour xam ndax am na doomu jàngoro bi ñuy woowee coronavirus am déet mhm. liñ ci am li fi nekk fii ci Sénégal Sénégal moomu ko Institut Pasteur bi ñuy coow Sénégal moomu ko donc ñun waa FRAPP dañoo jàpp ne yàgg na bi ñu waree am loo xam ne Sénégal moo ko moom la boppam comme nag dañ si tardé dafa jot. ak doomu jàngoro bi ñuy woowee coronavirus ñu am euh, bërëb boo xam ne Sénégal moo ko moomal boppam moo mun xool ndax euh, doomu aadama yi dafa am maanaam coronavirus am déet ba pare nag ñu lëkkaloo ak suñuy euh, yeneen mbokk yi nekk ci Afrique dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu lebaloon démb ak barki démb ngir ñu wax leen ne jamono coronavirus bii ñu ngi ñaan moratoire maanaam ñu ngi ñaan ci ñoom. ah bu fekkee démb la suba la ñu war a fay suñu bor mm-hmm. nañu may ñu fay fi ak weer te loolu lenn rek moo tax ñu koy ñaan mooy ngir ñu may ñu astuut bi ñu am ci xaalis au lieu ñu leen koy fay ci bor suba ñu fay leen ko weer ngir ñu jëfandikoo xaalis boobu teew ci xeexum euh, jàngoro boobu ñuy woowee coronavirus fi may daanelee mooy. Mhm. jàpp naa ne Sénégal Afrique ak àddina balaay coronavirus ak Sénégal Afrique ak coronavirus ginnaaw coronavirus mënatul nekk benn ndaxte kat ñu dañoo yàgg sàggan. dañoo yàgg sàggan li may faral di wax mooy ñun réewu Afrique mooy réew yi nga mooy réew yi nga xam ne ñun ñoo jël pay di xëccoo ndaare jël pay di xëccoo ndaare mooy lan nga am wurus nga am jën nga am pétrole nga am gaz nga am diamant nga am uranium nga am manganèse nga am waaw bauxite ak ñoom seen nga am naaj douze mois sur douze maanaam nga jël pay di xëccoo ndaare maanaam réew yi gën a ñàkk solo réew yi gën a ndóol ci àddina bi loolu nag ak coronavirus bii. Hmm. war naa ubbi gëtu yi nga xam ne gisuñu woon loolu ngir ñu xam ne dafa jot dafa jot Sénégal moom boppam dafa jot Afrique moom boppam. d'accord justement voilà Guy Marius wax nga ko ëllëg ëllëgu àdduna bi du doon benn après coronavirus bi tey jii ndax yoon jox na leen dëgg ci li nga xam ne yéen a ngi ko doon wax ci wàllum souveraineté nga. ah waaw xam nga jamono ji ñu nekk ñun suñu xol neexul ndaxte benn. doomu jàngoro coronavirus mu ngi menacé suñu askan. Mm-hmm. waaye li nga xam ne bokk na ci li tax suñu xol neexul moo di ne lii yëpp waxoon nañ ko démb ak barki demb waxoon nañ ne bu ñu bàyyi doxandem yi bu ñu bàyyi FMI ak banque mondiale bu ñu bàyyi réewum France entreprise yi di euh, manque suñu alal di fi bàyyi loo xam ne lu ñàkk fayda la ndaxte loolu noonu ñu fi bàyyi muy lu ñàkk fayda du ñu may ñu am système de système école bu baax. tey jii nii amuñu médecin yu doy amuñu infirmier yu doy tey jii nii amuñu usine buy defar masque ah am na yoo xam ne tey jii nii dañ koy jëlee bitim réew te fiñ koy jëlee ñoom jamono ji ñu ngi ci njaxare ñoom li ñu am sax manqué na waaw mooy li ñu doon wax rek ñu ngi ko doon wax euh, yàggul trop xalif général euh, des Tidjane yàlla yàq euh, yàlla yàlla yokk yokk ay atam ak leeram moo doon wax yàggul trop ca Banjul mu ne ba tey jii nii Afrique moomul boppam mu ne ah amul indépendance économique amul indépendance politique te ñaar yii ku ko amul amoo dara mu teg ci ne ñun dañoo bootu torop ci tubaab yi mu yokk ci ne jëflante jàppalante mën na nekk waaye wëy ci bootu ci tubaab yi ba ilaa yow mi diin mënul ne ñun waa FRAPP kaddu yooyu nga xam ne mooy kàddu xalif général des Tidjane yi mu wax yàggul torop fële ca bànjul mm-hmm. kàddu yooyu moo yàgg nekk suñu kàddu yàgg di bootu yàgg di euh, di bootu ci tubaab yi yàgg di nangu ñu ñuy noot yàgg di nangu ñu ñuy diri te duñu taamu suñu ndaw fu muy dal. moo tax itam loo ci gis ah un infirmier pour huit mille jamono yi nga xam ne yaa ngi waroon am benn infirmier pour ñetti téeméeri doomu aadama loo ci gis suñu hôpital doyul. benn hôpital la ñu war a am pour cent cinquante mille habitants tey jii nii Sénégal mu ngi am un hôpital pour cinq cent quarante deux mille habitants loolu xam nga ne dara gënu ko métti. moo tax lii dañ ci war a génn. maanaam corona bi daf ñu war a yee dafa war a yee askan wi ci ne dafa jot ñu am suñu moomeelu bopp ci suñu am-am ngir ñu jëfandikoo ko pour suñu wér-gu-yaram pour suñu njàng pour suñu béykat pour suñu sàmmkat. wax ci leneen Guy Marius Sagna ngeen bokk tamit ci ñoo lànk ñu taxawal ko ngir ñu xeex wala sax ñu ñaawlu ñaxtu li nga xam ne mooy yokkute gi ñu nemmeeku ci courant gi tey jii fan ngeen toll ci xeex boobu. xeex boobu day daal di wéy waaye nag xam nga jamono joo xam ne coronavirus ah tiital na ñëpp jommal na ñëpp xam nga ne jamono jooju. ah foog ñu fexe ba xeex coronavirus jëlee fi coronavirus waaye li ñu ci wax mooy jamono coronavirus bi war na tax président de la république gën gaaw a wàññi courant ndaxte coronavirus bi dina tëj ay këru liggéeykaay maanaam ay entreprise coronavirus bi dina tax ñi nekkoon ay journalier doon dem xëy ut liggéey ut xaalis benn ñeenti téeméer wala junni pour joxe dépense ñu ci bëri ci ñoom ak coronavirus bi dootuñu mënati am dootuñu mënati nekk journalier. Mhm. kon comme askan wi dafa nar a sonn. président de la république na wàññi courant bi comme ni ko ñun waa loo ñoo lànk waxee woon rawatina nag bu fekkee ci diggante bi ñoom luñ doon lay daanaka amatul ndaxte ñun ñëpp dégg nañ ne ah pétrole bi dafa wàññeeku ci àddina bi donc président de la république na wàññi courant bi ndax coronavirus bi na wàññi courant bi pour jàppale entreprise yi ndaxte tey jii nii entreprise yi am nañ jafe-jafe pour am marché entreprise yi am nañ jafe-jafe pour fay seen këru liggéeykaay ba ci entreprise de presse yi ndaxte bu fekkee amatu leen amatul ay événement ndaxte rassemblement yi dañ ko tere ah kan mooy ñëw fay réew mi FM wala beneen groupe en fait de presse pour fay benn reportage ak ñoom seen comme événement amatul léegi naka la ñuy jàppale entreprise yi moo xam entreprise de presse yi moo xam yeneen petite et moyenne entreprise yi pour man bokk na si ñu leen di jàppale wàññi courant bi ngir entreprise yi waaye ngir askan wi lan noo lànk doon wax démb ak barki démb tey la waalo gën a ay président de la république ndax coronavirus bi ngir wàññi coono askan wi coono entreprise yi ci jamono corona gii na wàññi njëgu courant bi. Hmm, gii mënuñu waxtaan ak yow wala jeexal waxtaan yi te duñu euh, dellu si ci li nga xam ne moom mooy sa séjour bi nga amoon fële ca camp pénal ci quartier haute sécurité bu camp pénal nan nga ko dundee woon. président de la république Macky Sall daf ñu jàpp ñun ci anam yoo xam ne jaarul yoon mu téye ñu kaso man ñetti weer ci anam yoo xam ne jaarul yoon ma dolli ci ne même nim ma bàyyee ma ñibbi sama kër jaarul yoon te nag lii ñaaw na. mbir yi na jaar yoon booy jàpp doomu aadama na jaar yoon boo koy téyee kaso ñetti weer na jaar yoon boo koy bàyyi sax mënul jaar yoon loolu wax dëgg yàlla ñaaw na lu tax mu ñaaw mooy damaa jàpp ne bu dee man def nañ ma ko man Guy Marius Sagna ça veut dire que ñu ngi koy def yeneen doomu Sénégal te kenn yëgul kenn gisul kenn déggul ndaxte kat di nga dégg fii ay doomu Sénégal wax seen naataango wax seen mbokk Sénégal ne leen naa la door te sama loxo du la laal après nga jékki rek nga dégg ne diw jàpp ko. fekk ne ni ñu ko jàppee jaarul yoon ni ñu ko téyee jaarul yoon man bi may génn kenn waxuma ne dañ dañuy déposer euh, demande de mise en liberté provisoire ñaareel bi man signé wu këyit bi nga xam ne euh, moom mooy moom la ñuy jox maanaam juge bi ngir mu jox ma demande de liberté provisoire te loolu du yoon ndaxte ci condition yi pour euh, kii di atte mën atte bàyyi la nga dem def nga maanaam nga bénéficier demande de liberté provisoire ci condition yi bokk na kii nga xam ne ñuy ñaanal moom la ñuy ñaanal liberté provisoire mu signé demande bi te man signé ma donc loolu daal ñaaw na maa ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem pas pour man waaye pour yeneen sénégalais yi nga xam ne ñu ngi dund lu ni mel te kenn yëgu ko léegi nag xeex bi day daal di woy ndaxte du ñetti weer du ñetti at du fanweeri at ca kaso moo ñuy taxa bañ a ànd ak suñu askan ngir mu moom boppam ak suñu askan ngir mu génn ci réew yi gën a ndóol ci àddina bi ak suñu askan ngir ñu am système de santé boo xam ne wax dëgg yàlla muy corona bi muy corona bu nar ñëw fii ak juróomi at wala fukki at système de santé boo xam ne dina ko mun daan dina ko mun dékku. Guy Marius ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf may fàttali ne yow euh, bokk nga ci mouvement frappe France dégage euh, bokk tamit ci ñuy jiite euh, mouvement wala lancé concept bi di corona dégage li ko tax a jóg moom mooy ñu xeex lii di virus bi le merci beaucoup merci